asalaamaaleykum avant tout maa ngi euh, jaajëfal ñëpp di massawu suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa jóg jot na di massawu aussi euh, waa FRAPP France Dégage di front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine bi nga xam ne ñun Guy Marius suñu camarade la ñu invité ko woon pour mu ñëw fii ci ñan yi léegi noo gisee li ñu ko def fii ci Nianing en tant que nga nekk sa représentant noo gisee action bi kañ nga mën a joxoon bon euh, ni ma gisee mooy comme ni ñëpp gisee dama yaakaar ne lii acte bu ñaaw la acte bu ñu dul rafetlu la te acte bu ñu xaarul woon la lu ñu xaarul woon la lu ñu mësul foog ne dina am ci commune Malicounda surtout Nianing parce que nag eh, ñun euh, jóg jot na ku ñu xam dañu nekk plateforme boo xam ne plateforme la boo xam ne nit ñi dañuy déglu nekk suñu ginnaaw. Euh, bu loolu weesoo ñu gis ne bi ginnaaw loolu amee ba tey euh, ñu doon dégg ñu ne euh, le coordonnateur national bi Guy Marius Sagna mu ne dafay porter plainte ñu bugg a xam waa FRAPP maanaam yan ban taxawaay ngeen fas yéene am ci li nga xam ne nii dal na ci seen kaw. bon taxawaay bi ñu ci am mooy comme bi ngeen gis rek li ñu war a def dinañ ko def. Eh, saisir nañu ñi ñu war a saisir parce que keroog boo leen xoolee li xew xam ngeen ne loolu agression la commandité par le maire Maguette mu nekk loo xam ne xaaruñu ko woon ci moom parce que le maire Maguette ba ñuy door a commencé daf ñu banaliser woon minimiser ñu woon jóg jot na ku ne xam na si dara bind nañ ko lettre une première fois mu tontu ñu ñu bindaat ko lettre une deuxième fois mu tontu ñu troisième fois tontu wu ñu quatrième fois tontu ñu ci li ñu bëggoon ñun nag comme askan wi moo ñu fi tax a nekk ñu ne nañu woo askan wi ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy 18 hectares yi nekk diggante domaine de Nianing ak club Adjana ba ñu defee loolu man mi nga xam ne man maa nekk représentant FRAPP au niveau communal nekk trésorier départemental ma gis ji je lui ai parlé en collaboration avec samay collègues yi nga xam ne ñoom ñoo nekk jóg jot na ñu waxtaan ak moom jox ko suñuy dossier yu clair parce que gi aussi caaxaan yëkkatiw ko dafa am lu ñu ko won loolu moo tax mu ñëw déplacé wu ñëw ñaniñ bu ñëwee ñaniñ réunion moom moo ko taxoon a jóg ba ñu ñëwee réunion bi aussi du ñu dem sans ñu def visite des lieux wan ko li nga xam ne moom moo tax ñun ñu woo ko ba ñu ñëwee vous avez vu ce qui s'est passé des gens nous ont attaqués des gens nous ont malmenés et c'est des nervis de monsieur Maguette Sène dont il a l'habitude de faire am na habitude de def loolu vous avez vu ce qui s'est passé à Dakar ku ñuy jiiñ euh, dëmm fekk la ngay seeñoo yeelu liir mooy li xew ñeniñ euh, euh, keroog en direct mu niyee ne moom il n'est pas au courant des faits et pourtant li xew yépp moom moo ko commandité gendarmerie seetaan ñu vous avez vu ba ñu demee ba xam ne waa Euh, frappe départementale ñu ngi ñëw ak waa Mbour justice en renfort pour euh, jàppale seeni camarades si la ñu ñëw en renfort mais ñun aussi lu ñu taxoon a jóg mooy wax dëgg ak yee askan wi si li ñuy nelaw parce que li ñu nelaw dafa bari il est temps ñu yeewu. waaw bi ñëpp di xaar dañoo ne Guy Marissa dina ñëw ànd ak waa a marre ànd ñëpp ñu bari nag gëmuñu ko ne ñëwaat léegi nag en tant que représentant est-ce que loolu dina am. laay ñun kenn moomuñu. kenn moomuñu te dëgg fu mu ne ñun dinañ ko yee il va revenir dina ñëw ànd ak France frappe dégage ànd ak Mbour justice dina ñëw ànd ak aar lu ñu bokk dina ñëw ànd ak waa yanamaar loolu si ñun la des dinañ waxtaan suupa dinañ leen jox ne dinañ leen jox date bi nga xam ne si la ñuy ñëw et et puis je vais vous dire conférence de presse bii ñuy def dinañ ko def ci kanamu mairie bu Nianing te kenn mënuñu ko tare parce que nag ñun on n'était pas préparé à ça on n'était pas préparé à sa lii xaaruñu ko woon ñun jóg jot na ba ñuy jóg fan lañ jaar fi ñu jaar ñëpp gis nañ ko le 20 août 2019 si la ñu taxawal plate si la ñu woote plateforme bi woote fële garage bu ñaniñ muy taw suba ba ngoon suñuy papa suñuy yaay ñu dem tàllal loxo suñuy sëriñ ñu ñaanal ñu ñëpp ñëw fekk si ñu ñu jàllale suñu message du ñu jàllale message boobu nag ba pare population boobu yëpp nekk suñu ginnaaw ñuy woote violence parce que nag ba ñu jógee dem nañu ci sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mourides wax ko li ñu tax a jóg mu ñaanal ñu ne ñu nekk leen ci ñu dem gis jiitu jàngu bi mu ne lekk leen ci tey nag du ñu dem ba war a woo suñu yaay yi suñu papa yi pour leeralal leen li xew diggante domaine de Nianing ak club Adjana wax dëgg ñu ñu fay fekk di di di xeex mbaa ñuy préparé mel ni kuy dem guerre loolu moo tax préparé wuñ ko woon. man tamit ci li ma bëgg a ñëw. waaye mooy tey du ñu gis euh, le directeur cabinet du maire Mor Fassa. Mhm. def benn euh, sortie médiatique. Mhm. wax ne moom il est disposé. Mhm. la commune elle-même elle est disposée pour que bu fekkee ne kii Mari Sagna ñëw na ak ñoom Yann Amar ak Diop Diop na bu ngeen ñëwee mu ne pare nañ pour jox leen toute la documentation yi nga xam ne. ñoom bañ leen koy laaj joxuñu ñu ko dañoo ñoo minimiser woon maire nee na moom reconnaîtreul jóg jot na parce que euh, mouvement la boo xam ne dañu jóg nii rek sans te kenn structuré wu ko moom du signer dossier bi mu minimiser première lettre bi ñu ko yónnee ne ne signé wuñ ko te lettre bi dafa jaar par voie huissier kon kooku ñun mënuñu déglu loolu tey mënuñu dem ba document yi commencé génn parce que moom moo ne woon terrain bi kenn attribué wu ko kenn lii moo dara gënu ko leer ba lii génnee ñu door a wax ne ñu ngi ko door a attribué Dieyna SURL bu dëkk Warang Seereer ñun xamuñu ko ñun kenn xamu ko pour la première fois ñu dégg loolu léegi nag ba ñu demee ba xam ne ñun du ñu jóg di wax di wax ni ay balaa balaa lépp lu ñuy jóg di wax dañ ciy am ay preuve yu leer dañu am ay preuve yu tangible loolu moo tax ñun ñuy jóg di wax te nag moom daf ñu minimiser ne du wax ak ñun il est trop tard actuellement askan wi rek nañu la ñuy wax. dañoo gisoon keroog commission domaine ñoom ñëpp ñu teew ci terrain ko nee na dañoo bëggoon a waxtaan ak Guy Marius Sagna ngeen bañ. c'est pas vrai sénégalais yi ñu ngi gis vidéo yi ñoom ba ñu wàccee c'est des nervis quatre personnes ou cinq personnes la ñu gis ne ñoom ñoo dëkk ci zone sud bi te ñun on les a listés xam nañ leen te du yem fii parce que gii liñ ko def ñun on va pas leur laisser te ñun dinañ dem. ba mu jeex. kon xalaat nga bii di ñëw daal bu ko jéem a yàq dina. non bi pa xel xalaatu ko duñ ko yàq parce que maire mu ngi ñuy woo ci waxtaan mais c'est trop tard parce que ba ñu waree waxtaan moo yàgg Laye Ndiaye maire le 9 juillet 2020 lañ ko bind première lettre yàgg na kon dossier bi te xam nañ si yeneen yoo xam ne génnagul te ñoom lu ñu wax rek ñun mën nañu génne ay dossier ay ay papier yoo xam ne ni c'est de preuves palpables teg ko ci kaw table bi. gis nañu ici itam euh, ma ñëwaat ay boy yu ndaw dañuy saaga nit ñi ndax am na ñu ci dëkk loo xam ne. je vais vous dire Laye Ndiaye keroog man j'ai vu de gars yoo xam ne ils l'ont fait malgré li ñuy def dalay leer ne neexu leen bëgguñu ko pourquoi ñu déployer ay nit de partout andi ay Ndiaga ay minicar ñoo xam ne ba ñu ñëwee wàccuñu parce que rus nañu sax caméra yi jël leen. parce que li ñuy def ñoom dañ leen koo defloo nu nous sommes libres de faire ce qu'on fait parce que ñun ñun suñu liberté dañ ko xeex ni ñu mel yàlla ñun ni ñu yàlla bindee daf ñoo neex parce que ñun dañoo libre. dama ne jaru ko xam nga lu tax parce que li si kanam la ñuy xaar parce que nag <laughs> xeex bi du yem fii domaine de Nianing gis ngeen ko dañ ko tëj ñu ne dañ koy ubbiwaat jox ko baarataal 12 hectares u Nianing yi nekk biir domaine de Nianing waa Nianing ñu ngi koy laaj. te baarata li ñuy ubbi defe naa duñ ko clôturer pour tëj ko kenn bañ a xam lan moo xew ci biir 10 hectares yi ñuy coow Gurel barki dem moo njaay yëg ngeen ko comprendre nga li ma la wax loolu waxaguñ ci 70 hectares club ajjana yi mu ngi fii tëdd di nelaw ma ne la xoolal du zone bi kese moo am problème mu foncier Guy Marius Sagna c'est un prophète c'est un envoyé de Dieu koo xam ne nii dafa ñëw pour yéen askan wi si li ñuy nelaw c'est le prophète des terres yàlla def fi yoon yonent bu ne ñu wàccee injil saboor comprendre nga li ma la wax téere yëpp am na lu tax ñu taxoon a ñëw ñii mbirum góor jigéen moo leen taxaw na jóg ñii leneen moo leen taxaw a jóg mais Guy Marius Sagna c'est le prophète des terres li ko tax a ñëw mooy xeex li nga xam ne mooy foncier te képp ku sa loxo tilim ci foncier xamal ne waa FRAPP ñu ngi sa kaw te du ñu bàyyi non am nañu déception mais on a l'habitude parce que yaakaar naa ne nag euh, Madina Wandifa moo gënoon a fii Madina Wandifa moo gënoon a fii te terewuñ ñoo def suñu déclaration je vais vous dire bëgguñu woon ñu def suñu déclaration et maa ngi maa ngi maa ngi lancer un appel à la jeunesse de Malicounda nañu yeewu xam ne ñun ñii li ñuy xeex du pour ñun du pour suñuy doom du pour suñuy sët c'est pour la commune de Malicounda c'est pour la jeunesse mbourois nañu jóg ñu ànd xeex lii ndax doomu Nianing si liñ ko xamee woon mooy xeex ba ay hôtel taxaw ay nit liggéey fa plus de 6000 employés ñu ngi tëdd di nelaw ñuy dof nañu ñii dee nañu ñu gumba nañu ñu jóg bëgg a jël lii jox ko ñeneen ñu def ko ay résidence kon nañu jóg yeewu nañu jóg yeewu au moment où ñun ñu ngi taxaw fële di défendre Nianing di defendre euh, teeru département de Mbour am na ñoo xam ne ñu ngi toogoon si ginnaaw te ay des dignes fils de Nianing ñoom ñoo jógoon di ñu saboté di ñu saaga te loolu di yoon mais nag on les comprend parce que nag ku la ëmbal sa sankal ëmbal la sa sutura. léegi dañoo mais dama lay wax euh, Laye Ndiaye ku nekk libre nga def lu la neex mais bu dara da jotul pour ñu xeex lu askan wi yëpp bokk defe naa ku nekk waratul am. waratul am appartenance politique te waru fa feeñ parce que ñun li ñu doon xeex ñoom ñu ñëwoon di di ñu di ñu di ñu di ñu sànni xeer di ñu saaga xam nañ ne carrément liñ liñ doon xeex lu tax bëgguñu woon ñun ñu def suñu suñu suñu suñu suñu suñu déclaration mais à la gendarmerie man maa fa nekkoon ak Guy Marius Sagna ak Robert ñun ñoo fa nekkoon mais le commandant de la de la gendarmerie bugul woon ñu def euh, bëggul woon ñu def déclaration. lu ko bëgguñu ko parce que lu tax bëgguñu ko Korjokel la ñu naroon a defee réunion bi ñu woo monsieur Niang minuit lañ ko woo ne ko boo ko defee ñu relever la ñu dem de ses fonctions ñu dem di di salaan ma Korjo kii oh, oh, gis euh, madame madame Colette avant Oasis gis nañu madame oh, Colette pour maam Dibor Salaan ñu woo ko téléphone menacé ko ñu dem Oasis fay suñu xaalis ba 15 heures si lañ ko woo téléphone ne ko boo ko fa defee di nga am ak ñun problème kon kay ñoom bu magasin ne yëgul woon li xew yëg na li xew ba pare nag le commandant de la gendarmerie daf ñu seetaan daf ñu seetaan et aussi bugguñu woon ñu def suñu suñu suñu déclaration parce que loolu lañ leen waxoon parce que ba ñu génnee pour def suñu déclaration ci bi parce que li ñu leen wax leer na mooy ne nous ne pas en état d'arrestation kenn du ñu fi téye dañuy génni mu ne ñu monsieur vous allez rester parce que votre vie est en danger ñu ne ko bu yaboo parce que li ngeen bëgg mooy téye ñu fii ba guddi pour ñu bañ a def suñu déclaration te dinañ def suñu déclaration mun nañu vous allez prendre cette de cet itinéraire def leen Joal ngeen génnee Sandiara dem ñibbi ñu ne ko duñ ko def mbuur lañ koy defi jee parce que moom ordre yi mu jotoon mooy mu ñun ñu bañ a def suñu déclaration et on l'a fait jóg jot na nag li mu bëggoon ak fi ñu bëggoon a yegg yegg nañ fa sans ñu génnee dara sans ñu neexal kenn def nañu suñu promotion te laaju leen ko dafa am lu am solo yow mi tey fii di bi ngeen demee foofu lan moo taxul ñu arrêté waa affaire karak parce que da nga naan arrêté woon nañ baax ak ñeneen lan moo waraloon non c'est loolu c'était juste rek ñoom xam nañ ne jël nañ leen jël nañ leen vidéo il faut ñu ñu faire semblant que ne dañu jàpp mbaax dañu jàpp quelques personne mais ñun ba ñu génnee lañ leen bàyyi parce que nag ñun keroog bu doon ñun ñoo def li waa APR def bu doon ñun ñoo def li nervi yi monsieur le maire Maguette def kon keroog ay grenade lacrymogène moom mooy tàkk mais comme nag ñun la waa jóg jot na la waa frappe France dégage la waa Mbour justice la no dañ leen di bàyyi ñu def lu leen neex parce que nag te li ñu def dafa ñaaw dafa ñaaw ci image yu Sénégal ay gendarme taxaw ngay wax lu la neex di def lu la neex parce que am na lu nekk sa ginnaaw. voilà léegi balaa ñuy dem après mu bay Souleymane yaakaar naa ne 177 13 personnes ah, ñoom ñoo lay xool ah, en direct actuellement. Mhm. Euh, xam naa ne euh, gars yi bàyyi ko il faut ba laaj la nag waral xam nga waral aussi yéen dañoo gis lu bëri ci politique bi division bu bëri moo fi am yoo xam ne daal xamu lu ko waral léegi daal ñenn warang daal amatul ñu bëri dañoo jubootu lu ko def. laay laay euh, loolu loolu moo moo loolu xam nga lan moo ko indi politique bu salte bi parce que bu njëkk dañ nañ dañ doon politique mais dañ doon demalante sekk jàmm man APR ay nit laa fa am parce que man xam naa politique politique mënumaa tax a def lu ma warul a def. mais léegi dafa am ay dëj yoo xam ne sax boo bokkul si yenn camp yi doo dem ay ngénte yoo xam ne boo bokkul si yenn camp yi doo dem ba mu dem sax ba nga xam ne lu ñu war a séddale socialement foog nga bokk ci yenn camp yi pour nga mën see jot est-ce que yaa ngi may dégg foofu lañ toll te je lance un appel ñun bu ñu kenn def yetu xeexukaay ñun au moment où ñu ngi woo la population pour ñu ñëw xeex li ñuy xeex ba beaucoup de gens dañu croisé les bras li may li tax may wax loolu nag. xaaral ma préciser aussi war ñenn it loolu moo fa am balaa ñuy wax débat aussi da am mais xam nga lu tax dafa am ñoo xam ne dañu taxaw seetaan instant bii nii nga xam ne jóg jot na yóbbu combat bi foo xam ne nii dafa jéggi dayoo ku nekk mu ngi jóg mel ni kuy jafru je lance un appel xeex bii ñuy xeex du xeex du politique du dara. ñi nga xam ne dañuy làkkatu ne ay opposants lañ nañu jóg wàcc sur le terrain li nga xam ne moom moo fi nekk pour ñu dénoncer ko ñu dénoncer ko ñun kenn duñu utiliser pour xeex benn affaire kenn mënu ko utiliser parce que ñun kenn nekkul suñu ginnaaw entité lañu boo xam ne la ñun famille lañ idéologie lañ esprit lañ loolu mooy jóg jot na mais jóg jot na kenn mënul nekk suñu ginnaaw léegi man li ma bëgg a wax mooy que ci ci biir ñëw bi ah, leen oo ci waxtaan mais yéen nangu leen pour pour pour waxtaan xam Euh, euh, bu fekkee ne euh, yàlla def na di ñëw ànd ak waa yanamar ànd ak ay mbuur justice ak jóg jot na ñoom bu ñu ñëwee bu fekkee commune bi jóg na pour indi leen documentation bi da koy jël. non ñun ñun on a tous les documents qu'il nous faut tey jii loolee ñu laaj ci ci ci ci problème bi ñun ñu ngeek moom parce que nag jóguñu rek di wax nii nii nii nii mais maire bu dee moom li muy wax ne li muy wax leer na ko ne moom ñun li ñuy wax amul mais na porter plainte il n'a qu'à porter plainte du ñu arrêté non du ñu arrêté on ne pas arrêter et je lance un appel. mais ci leeral googu ci kan la war a mën a leeree. ci kan la war mën a leeree ci maire na dem wax population bi. ah au lieu de mu leen jox document bi. na woo population bi ñu toog ñu waxtaan ñu waxtaan mu leeral mbir mi. kon daal ci gàttal su fekkee dégg naa moom maire ak euh, ses partisans bu ñu génnee ay documents pour jox leen ko mooy jour bi nga xamante ne nii euh, Guy Marius Sagna ñëw na fi ànd ak euh, yeneen groupe activiste yi yëpp boobaa documents yooyu soxlawu leen ko ndax am ngeen ko li ngeen bëgg moom mooy mu def déclare mu def solennellement une déclaration pour éclairer la lanterne des population de Malicounda ci suuf. loolu la ñu bëgg parce que li muy wax bi sànq ba tey c'est contradictoire tey mu wax lii suba ñoñam yi génne wax lale na toog ak ñoom waxtaan avant muy génn di wax parce que wax dafa garaaw mais moom ku nekk xam na ne lii dañ ko jaay lu ñu jaayul kenn du ko clôturer lu ñu jaayul kenn du fa teg gardien muy garder lu ñu jaayul kenn du abattre garab ya ne loolu laa amoon lu may wax Jules je vous remercie merci beaucoup